dalati leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy dooree ak coowal Covid 19 ginnaaw bi nga xamante ne nag saa si la tembe mu ngay gën di impacter ci liggéeyu ko askanuk Sénégal wërngal këpp waaye ñeneen ñoo xamante ni nag saa si la tembe rek ñu ngay wax ne seenub liggéey dafa tagga tembe du ñenn ñu dul jigéen ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy jaay seenu ko bopp ñu ngay xam ne ni saa si la tembe defuñu leen rek lu dul daw uti ji ab Instagram Instagram di benn application bokk ci xarala yu yees yi yi ca waxtu boobee nag ñu ngay xam ne ni seen i ak seen i dañ ko fay faral di jaarale bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien mi ñu baaxee boobu la xibaar mu ngay xam ne sax ne ñenn ca ñoom de par yenn saa dañuy am ay jafe-jafe ak ndawal waa police ginnaaw ay foto yu ñuy posté ak i vidéo daal di ciy def seen numéro de téléphone ngir seenu client waaye ca waxtu boobee nag ndaw si taamu di nëbb turam moom mu ngay xam ne ni li muy def rek du leen lu ginnaaw bi nga xamante ni nag police su leen sa woowee day faral di leen laaj ci seen carnet de santé waaye tamit di leen laaj ci photo ak ay vidéo yu indécent yi nga xamante ni ñu ngi koy publier teg ci di leen ci indil ay problème ñu daal di seqi jéegoo dem ci diwaanu ko France ca France googee nga xamante ni nag ab ndaw soo xamante ni noir la ndaw soosee nga xamante ni sax noir boobee dafa daal di wann lor ëmb ba daal di sori loolu moom dafa ay policier daal di jël daal di koy violenté ginnaaw ay dóor yu métti yi nga xamante ni dóor nañ ko vidéo bi boo dee xool ndaw soosee ñu ngi ko tëral ci suuf mu ànd ak ñoom ci xataraayu waral na naka ba policier français yi daal di yëkkati seenu tànk képp ko ca laata muy fipparñi ko ak ñoom rek ñu daal di mënote loxo ya mu nekk mbir mu métti mbir mu doy waar laata ñuy dagg boobu la vidéo ñu gis ci ay noir yoo xamante ne rek ñu nga leen di dóor ci benn post de police ba tey ñu daal di addu wax ci leneen ca diwaanu Italie nag benn moodu moodu boo xamante ni dafa màndi ba xamul fu muy taxaw moo daal di dem dugg ci benn église ci jamono joo xamante ni nag ñu nga fay amal benn mees ca mees boobee nga xamante ni laata muy àgg rek suñu sukkandikoo ci l'observateur moodu moodu boobee xamul fan lay taxaw ginnaaw ba mu ñëwee daal di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom moo di curé bi daal di koy yëkki ay saaga yu ñaaw teg ko ci kawam laata ñuy woo ndawal police police di ñëw di ko jël si mu daal di fay saccagé ñu yóbbu ko ca commissariat de police ba muy wax wax yoo xamante ne nopp mënu kaa benn yoon waral na nag ba saa tembe rek ñu ngi ko placé en garde à ñu wax ci mbas mi nga xamante ni nag moo lëmbee ci réewum Sénégal ginnaaw magistrat ak i greffier lenn ci ay agent de sécurité yu tribunal bi saa tembe nag daal dina ñuy jote seen wàll ci mbas mi bu ñu sukkandikoo ci magistrat bu tribunal du travail ak ñeneen ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo fare ci ëttub attekaay bi rek daal dina ñuy jot seen wàll ci mbas moomee génnee ci kenn ci secrétaire général bu cour d'appel bu Dakar bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué bi nga xamante ni nag mu ngay xamle ne ñett ci ñoom daal di nañuy amee doomu jàngoro gi bu ñu sukkandikoo ci L'As quotidien mi joxe boobule xibaar mu ngay xamle ni saa sile tembe nag ginnaaw ministère de la justice ak greffier yi ak yenn ci ay agent de sécurité yu amee doomu jàngoro gi waral na ba ëttub attekaay bi daal di nañuy jàpp nag ne saa tembe daal di nay infecté wu ñeel doomu jàngoro gi lee ba tey ci wàllum justice sax la ñuy desandi waxtaan waxtaanee ak ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk ci wàllum justice ak mouvement d'humeur bi nga xamante ne nag depuis altine ba ñu ngi ko door di amal ay grève bu ñu sukkandikoo ci laas moom mi ngay xam ne ne bi bi ëmb syndicat des travailleurs de la justice ñu gën kaa xam ci sud juste ñoom nag saa si le tembe rek dañaa bank seenug loxo ginnaaw ñaari fanu yi nga xamante ne nag daal dinañ koy door fas yéene kaa jeexal ne gën tey mu yemboo ak 72 heures yi nga xamante rek ñoom leen ci ay garde ak i greffier saa sile tembe rek li ñuy sàkku mooy seen wàllub liggéey ñu gën kaa ñoŋal waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum ndàmpaay ak la ñu yellool ñu daal di koy yëkki teg ko ci seenu loxo ñu daal di wax ci jamono ji nga xamante ni nag mbas mi bés bu yàlla sàkk muy gën di yokk ci réewum Sénégal waaye ca waxtu boobee teewul benn yoon ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi président Macky Sall daal di yëkki ay jéego dem fa nga xamante ni nag moo di ca kër Mimi Touré Mimi Touré mu nekk présidente bu conseil économique social ak environnemental ko waral na ba njiitu réew mi daal dinay wàcc ca kër Mimi Touré ni ngeen ni démb nag ànd ak ci ñaari ay garde du corps dem daal di jébbal ab njaalam ginnaaw ba muy xam ne ni yaayu Mimi Touré ab way juróom la waaye tamit mu ngay xam ne ni daana ko baaxee lenn ci ay conseil ca waxtu boobee nag ki fi nekkoon njiitu réew mi di président Abdou Diouf moom tamit daal dinañ koy séen ca biir kër Mimi ci jamono joo xamante ne Abdou Diouf daal dina fi amal ay séjour fii ci diwaanu ko Ndakaaru ginnaaw bi nga xamante ne mbas mi moo waral dem bi ak dikk bi ñëpp daal di toog fii ci diwaanu ko Dakaaru waral na nag ba njiitu réew mi daal di jaale génnaat daal di ñibbi waxaat wax ju rafet ji nga xamante ne moom la séq digganteem ak Mimi Touré keneen koo xamante ne membre bu gouvernement bi la di jëwriñ gi yor kaaraange biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci L'As Quotidien miy dëggal ne kii di Aly Ngouille Ndiaye testé nañu wàllum wér-gi-yaramam mu daal di amee doomu jàngoro gi ndaxte nag nee na lenn ci ay cas yoo xamante ni saytu nañ seen wàllum wér-gi-yaram rek dañaa nekk ay cas asymptomatique maanaam ñi nga xamante ni doomu jàngoro gi du waaye kii di Aly Ngouille Ndiaye doomu jàngoro gi mu nga ca yaramam ñu àddu wax ci coowal Bati Plus ak Cheikh Yérim Seck mi nga xamante ni saa sile tembe nag ab kaso mu ngi koy xeeñ ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne Libération Online daal dina koy révélé mu ngay xam le ni kii di Cheikh Yérim Seck daal dinay bénéficié wu waat beneen retour de parquet ginnaaw bi mu war a jàkkaarlooweek procureur de la République nege ni tey ñu ngay xam ne ni kii di Cheikh Yérim sekk li ñu koy toppee rek bokk na ci génnee ay information yoo xamante ni wérul waaye ca waxtu boobee loo xamante ne bànqaas bu ëpp ëmb ab taskatu xibaar la muy SYNPICS ba ci convention des jeunes reporters kenn ku ci nekk moo ngi taxaw di wane ab soutien wam te naan taskatu xibaar bi nañ ko bàyyi mu ñibbi ca këram ndax deful lenn lu dul def ab liggéeyam te yellul benn yoon ñu koy teg ca kaso ba ñeneen ñu mer ba futt du ñenn ñu dul waa kër Cheikh Ahmadou ba Mbacké waral na nag ba Mbacké Mbacké yi saa sile tembe rek dal di def seenuk bloc def benn say ñoom nag li ñuy bañ kenn tudd ko du lenn lu dul wàllum littoral bi ginnaaw coowal foncier bi nga xamante ne ñu ngi ciy tudd di porte parole du xalif général des mourides di Serigne Bassirou Abdou moom mi nga xamante ne nag saa sile tembe rek ay rakkam ak i magam ñoom ñëpp booloo nañu seen ba doole ndaxte gis nañ ne mbir mi ab acharnement la jëmale ci kaw Serigne Bass waral na nag ba saa sile tembe rek waaja ñuy woowee Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre waral na nag ba saa sile ko Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké gi te ñu mën cee lim kii di Serigne Cheikhouna Mbacké Mourtada moom mi nga xamante ni nag sët la ci yoonu Serigne Touba daa di nay taxaw daa di ne wax ji nga xamante ne ñu ngi koy yëkki di ci tudd Serigne Bass Abdou Khader loolee la bëgg mu dakk wala ku ko waxati rek ñu daal di joko jàmmaarloo ak yow ba mu daal di saf sàpp ba tey ci wàllum littoral boobee sax kii di ndey Ndack moom mi nga xamante ni ñëpp xàmmee nañ ko mu nekk ab animatrice ca groupe Futur Média daa nay taxaw yëkki ay dëgg daa koy tekk ci ndoddal état du Sénégal ndaxte kii di Ndeye Ndack moom mu ngay xam ne ne Barthélémy Diaz combat bi muy def ab combat bu noble la te askanuk ñëpp a war a génn daal di ko ciy jàppale nday ndaak ne waaw naam sax bu fekkente ni war nañaa jóg xeex ngir li nga xamante ni moom moo di suñu moomeel di moomeelu ndakaaru ñu daal di ciy tegaat suñu loxo naam sax wooteel naa kii di njiitu réew mi Macky Sall waaye nag kenn du ñu seetaan kenn di caxat-caxatee suñu réew mi wàllum littoral bi sénégalais yee ko moom kon nañu génn daal di koy xeex ba jotaat li ñu moom keneen koo xamante ni nag daal nay dem kalaame ji ci ca ëttub attekaay ca pencu ndawu réew ma du kenn ku dul député bi di Aïda Mbodj Aïda Mbodj mi nga xamante ne daal dinay dem jàkkaarloo ak Moustapha Niass daal di koy tegal ay question ñeel wàllum actualité li muy laaj rek euh, bokk na ci ñu daal di koy leeralaal kii di Abdoulaye Diouf saar ak Mansour fay la ñu leen dénk ndénkaane googu ba xam jaar na ci yoon waaw wala déet waaye lu mu ci mën a doon rek dund gi saa si la tembe réewum bu dee fukk la ñaar ña jot juróom-ñett si la ñoo ngi yor seenug weesug yaakaar ne dinañ jota laata at mee jeex ñu dellu si ci situation du jour ginnaaw test yi nga xamante ne nag jëwriñ gi yor wàllum wér gi yaram ak action sociale mu ngay xamle ni ci 970 test yi ñu doon amal 122 daal di dellu si amee doomu jàngoro gi ñuy xamle nag ne 111 yi nekk na ay cas contact waaye 11 yi tamit nekk ay cas communautaire ca waxtu wi le an personnes yoo xamante ni saytu nañ seen wàllum wér gi yaram ba ñu wér ba war a génn ca lalu hôpital ya 16 ñoo nekk ca réanimation ñoo ñu ngay xamle nag ne yeneen ñett daal di nañuy ñàkk seen bakkan lim ba daal di toll ci 73 yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci réewum Sénégal ba fi mbas mi dooree ak léegi limu ko 5369 cas yoo xamante ni am na fi 3606 yoo xamante ni faj nañu leen ba ñu wér saa si le tembe limu ko 1689 ñoo tëdd ca kër docteur ñuy saytu seen wàllum wér gi yaram.